yow mi bëgg a seetaan combat booy Niang numéro 2 ak Tapha Tine ñu wax la naka ngay def ba jënd ko mën ngeen ko jëndee par code comme mën ngeen ko jëndee ak seen carte bancaire da ubbi sa navigateur nga def point affiche comme après nga bës ci événement booy Niang numéro 2 ak Tapha Tine di nga gis ñaari option option bu njëkk bi mooy connexion par code mooy 2500 bu fekkee ni yaa ngi Afrique Brésil wala Argentine mën ngeen a utiliser connexion par code pour nag yéen ñi nekk Afrique Argentine wala Brésil da ngeen di bës connexion par code bu ngeen ko bësee di ngeen gis ay options yu différent par exemple bu fekkee ne da ngaa bëgg a fay ak sa Orange Money web dina la laaj sa numéro de téléphone nga daal di koy dugal nga valider après mu laaj la code d'autorisation ñu la nga def dièse 144 dièse 391 dièse après dina la laaj sa code secret boo ko defee dina la envoyé ba noppi affiché la code d'autorisation bi moo nekk noonu ngeen di gis code d'autorisation boobu nag da nga koy copier boo ko copier nga daal di koy coller ci foofu ñu bind code d'autorisation temporaire nga dugalaat sa numéro de téléphone après nag nga daal di bësaat envoyé automatiquement paiement bi dina jàll pour 2500 francs automatiquement di nga jot benn message Orange Money buy wane ni fay nga ak sa Orange Money ak beneen message buy ànd ak sa code de paiement code boobu nag mooy code combat bi code la boo xamante ne ni douze chiffres la moom ngay copier daal di dem ci seen affiche point com ngeen dem nag ci événement booy Niang numéro 2 ak Tapha Tine daal di cliquer connexion par code après nag nga bës accès par code dina la laaj nag nga coller fa code douze chiffres boobu nga copier woon wala nga tapé ko foofu nga bës apply après dina la wan ni nag def nga succès après nag nga bës ci bouton access contact mooy bouton bu orange boobu boo ko bësee da seetaan li nga xamante ne ni moom mooy sa combat waaye nag bul fàtte ni code boobu nga xamante ne ni moom nga dugal sa téléphone mënoo koo dugalaat feneen fii ak déconnecté wu pour nga déconnecté wu nag nii ngay def bësal ci boobu ñu bindu compte boo ko bësee di nga gis fu ñu bindal déconnexion nga daal di déconnecté wu foofu ñu fi nekk ñëpp dinaa leen jéem a jël ñu ñëw nag tënk ak jib xëlk jib bëgg nga ñëw ci ñaari aspect dama bëgg nga ñëw ci ñaari aspect mhm. mhm. aspect bu ci njëkk moom mooy Boy Niang physiquement tafaatin Tine physiquement Boy Niang mentalement Tapha Tine mentalement ñaar yooyu laa bëgg nga tënk pour ñaari mbër yooyu ba pare nga defal ma sa conclusion ci combat bu ñu jëm salaamaaleykum déjà maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp ñuy seetaan live yi euh, neex na trop yi combat bi di ñëw moom combat bu neex la muy Tapha Tine ak Boy Niang euh, franchement ñaari damay commencer déjà si si état physique ou euh, je mhm. trouve que puis man xam naa ñu bëri duñ si d'accord mais man sama analyse la pi gëm naa ne loolu moo xew mooy que pour man tafaatin yeggul si potentiel am bu mu war a am au niveau de sa force. Mhm. man pour man doole wam des na puis yeggul fu ñi ñi foog ne foofu la yegg. je vais m'expliquer pourquoi dama seetaan benn vidéo dernier vidéo bu mu doon entraîner puis j'étais déçu ndaxte man gis naa gis naa gis naa ouais am na doole bu ñu nee doole on va se dire am na doole mais doole wam fu mu mën a yegg xaajul ba di fa yegg gis nga li ma la waxoon même problème bu ma la doon wax Siteu moom laa gis tamit si Tapha Tine manque de constance si entraînement tax na boobu chaque fois bu combat jegewee si le gars yi di gën di entraîner puis gis naa ne dafa manqué technique d' entraînement si vidéo bu ma gis technique d' entraînement wam dafa des gis naa ko muy def benn exercice deadlift di yëkkati poids bi mais dama tiit dama ne naka la pour man nit yegg benn niveau bii di defee benn affaire boo xamante ne c' est super important mooy doole ndigg mooy doole force tu l' aussi mal ba pare teg soke sur le poids bu mu doon yëkkati ak nu mu ko doon yëkkatee effort bu mu doon fournir da ngay sentir doole bi fu mu toll loolu moo ma mën a permettre tamit ma wax ne doole bi des na gis nga bu ñuy évaluer yàgg naa ko wax ci force ñetti affaire deadlift bench ak squat si exercice bu mu doon gis muy def ba xolo moom laa doon seetaan balaa même muy am fii la fii la doon defee deadlift poids bi mu yëkkati nii bu nekkoon sax bu nekk vingt kilos la ça veut dire que mu si cinq plate bu nekk vingt dafa woyof torop xoolal xoolal xoolal nu mu positionné wee ndiggam ak tànkam nu mu mel balaa muy commencé ni mën na gaañu mais gaañu solidement si mouvement bi nu mu ko defee nii ndaxte lii du stiff leg donc fléchirul flexion wam des na doowam des na droit ba pare xoolal nu muy amee misère pour yëkkati pois bi nii lii man pour man gabari wam moom fu mu toll fu mu toll dëggantaan ñaari répétition nga nga wàccee peu importe lu ma lay wax moom du pour naagu deux heures du matin boo ma yeewoon ma defal la si vingt rep mm-hmm. am na mbër yo lii rëk-rëk boo ko joxoon mu defal la si plus de vingt répétition donc est-ce que doole wam yegg na fi ñu koy wax wala tamit est-ce que tamit vidéo bi du pour sal rek mën naa am pour loolu kese la je pense pas que mbër en général mbër soit mu bañ a def mais mbër du naxaate. du naxaate man tamit loolu laa jàpp. waaw li wax donc euh, ñun parce que ñun on n'est pas spécialiste en la matière. ñun dara moo tax ñu bëgg yow ñu lay jël en termes de musculation physique force yow yaa ñuy mun a wax mbëb bi doon toll. ak ma alam itam fu ma lay bëgg a interpeller jub mun nga faible mun nga faible ci yenn exercice de musculation yi mais teewul nga am doole ci yenn. exercice fa laay daanelee boo ma yeggee boo ma bàyyee rek dinaa fa yegg si donc boo xoolee exercice bu mu doon def nii nu ko exécuter rien que par bu doon def mouvement bi wàññi poids bu mu doon def sax si lay gën a am doole dëggantaan que moom num ko defee nii ndaxte lii du ko du ko indil doole dëggantaan donc doole ndigg bi des na puis bu ñu nee bëree bëree ndigg la de donc fii man leer na ma ne bu jàppantewee ak mënul simpi mënul simpi ba euh, euh, euh, tapacoli booy booy ñaa du ko mën a moom daf ma leer ndaxte da ngay xool poids bu muy def nu muy imaginel mu bëgg ko def booy ñaa ba pare booy ñaa tegal ko si résistance poids boobu dina ëpp lii fuuf donc dina am difficulté góow mëne tafatin déjà foofu nañu anéantir simpi est-ce que mouvement yu bëri tamit da ngay da ngay da lay limité mais par contre fu may avancé mooy loolu mooy wane euh, difforme maanaam doolewam c'est mal proportionné si yaramam nu mu mel boo xoolee buy buy bench par exemple bench assisté sans pour autant mu am dara mais gis ne poids bii nii daf si def répétition yu bëri donc li nit di wax li nit yi di wax ne tafaatin bu la jàppee du la bàyyi dëgg la xoolal li ëpp ëpp bari wa maanaam ceesam ak yaramam si kaw yëpp lépp luy lépp luy jàpp bras ak fiwam yëpp daf si bëri doole loxo yi épaule bi chest moo tax bu la jàppee doo mën a rëcc donc loolu c'est des faits faits yu yu palpitant bu la jàppee doo rëcc mais est-ce que dina am doole wu manœuvre puis beneen affaire bi mooy tànk yi pour man njool foog nga am tànk yu bëri doole tamit pour mën a pour mën a def yenn finition de mouvement yi léegi est-ce que mës ngeen gis benn question Tapha Tine war nomb kenn Yékini Junior kese la wër nomb. waaw à part Yékini Junior gis nga kenn ku mu wër nomb. non je me rappelle pas mun naa mais fàttaliku ma. man guy gi jege woon na wër nomb mais c'était pas totalement donc est-ce que donc on est d'accord on est d'accord que c'est très rare mu am explosivité ak vitesse boo xamante ni dina am déplacement ba mën a wër nomb kenn. vous êtes d'accord mm. ou pas. totalement d'accord oui. donc bu fekkee ne yow sa doole ndigg dafa des ba pare amoo vitesse wër ndomb wala déplacé wu. def vitesse am si haut de corps bi kese la comme doole wam nu mu nekkee si haut de corps bi mooy direct yu mu lay jox donc mais explosivité si tànk yi dafa des. kon plaqué la am ci làmb ji ak dóor. dóor donc technique yi dafay des tuuti bu fekkee doole bi nekku fa léegi nag moom moom même style bal la bu la ëppee doole nag moom kenn waxatu ko. léegi nag yow tënk nii ci doole Tapha vraiment man comprendre ma ci woon dara. honnêtement. da man li du ma mën a def benn analyse parce que du sama domaine mais yow explique ma lépp mais quant booy Boy li nga analyser ci Tapha man beaucoup de gens moo dit que Boy Niang bu mu jógee voyage doole bu mu yor daanul Tapha Tine yow wan xool nga entraînement Boy Niang est-ce que tu es du même avis non dinañ ñeexoo dinañ ñeexoo parce que ñëpp dañuy xaar ne justement que Tapha moo koy ëpp doole mais man jàpp ma ne Tapha Tine dina ko ëpp doole si lu ma gis. mais est-ce que mais lii tamit est-ce que yàgg est-ce que yàgg na wala yàggul mën na am tamit am na temps traînaat fi ba gën fi jàpp. xaw ma vidéo bi depuis kañ la. vidéo bi yaakaar naa yàggul yenn yàggul vidéo bu Leewtoo génne mais est-ce que est-ce que gis nga entraînement Boy Niang. jotoon naa si am quelques bouts mais seetaanu ma lépp mais Boy Niang il est constant si biir entraînement xam naa ñi si dañu foog ne peut-être man faralu ma kenn si ñoom ñaar en passant. dama analyse dafa objectif dama xool si li ma gis juste si état physique comparé seen avant ak maintenant ok boo amee doole bu ëpp si kaw sa tànk yi gaawoo si suuf noonu daf lay handicapé ba pare teg si Tapha dafa amoon biir benn instant Tapha bu avant moo ma gënal fuuf que Tapha Tine de maintenant parce que même bu fekkee ne proportionné wul si biir yaram bi dafay am mobilité de tell sorte que dina mën a dina mën a agir si biir bëre bi boobu di loo ko dóor bu gaaw gaaw day recul bu gaaw boo xoolee tax euh, euh, euh, ama nu mu nu mu moom wax ama nu mu fa demee manque de réactivité ak yéex si suuf moo tax mu permettre ama mën ko dugg rapidement am tànk bi segal wàccee ko rapidement mais bu nekkee da ngay jaay ak moom concours de doole si kaw bi foofu la lay mënee. mais mais Djib posez foofu avant qu'on parle de avant qu'on ne parle Euh, du mental des deux lutteurs bëgg naa technique kaddu juste en une phrase euh, fa ngay tàggatoo nga résumer ma analyse Jip Hulk objective ou pas ak naka nga ko gisee. bon man ni ma mën a wax moom xam naa spécialiste la ci ci domaine bi mais man ni ma mën a wax ci côté Boy Niang en tout cas bu indee forme bu mu indi woon euh, ak dernier combat bi comme nu mu tudd moom Lac de Guiers Tapha dina am problème. parce que Boy Niang gars yi dañ koy dañ koy dañ koy xeeb nii tu vois parce que euh, Tapha Tine nañuy jox image dafa am doole mais Boy Niang ñàkkul doole dafa dafa ba bari nag Lac de mm. te boo seetloo bëri boobu il a fait def na ay effort yu bëri mm. pour bëgg a daan maanaam boo seetloo Lac de Guiers euh, li Moussa Gueye def ci moom ba mu daree mm. bëre ba tey Moussa Gueye li mu def ci moom amaane boo ci paree la euh, Boy Niang moo ci xaw a tane. Mm-hmm. parce que Moussa Gueye moo bëreeg moom ba am fu mu koy yegg. Mm-hmm. mais bàyyi boo seetloo a part loolu booy ñaa moo moo ci moo ci tane ci ñu bëreeg moom ñëpp. te mm-hmm. dafa fournir doore bu doore bu mat sëkk. da ngay sentir ne entraînement feeñ na ci te daa def na ko kele xam boo kii dafa mën a résister te kele boobu sax moo tax mu pooj kii xaw a laal suuf. booy ñaa am da doole. am na vitesse mais juste benn benn benn benn kii rek laay wax. Tapha Tine mën na bañ a ñàkk vitesse bombardier amul vitesse ah comme kii nu mu ko waxee Tapha Tine amul euh, bombardier amul vitesse. mais mm-hmm. souvent ci biir làmb mën nga ñàkk vitesse wër ci ndombul mbër. Mm-hmm. def ci ay clé yu bëri parce que boo leen jàppantee lu nekk mën na ci xew. Mm-hmm. mën nga bañ a am vitesse nga mën nga bëri mbër boo xam ne dafa am vitesse sax ci vitesse am yow nga koy nga koy defee kile ci lu muy gaawee am noo koy jàppee gis nga bombardier bëri naag Modou Lo Modou Lo gaaw. am nu mu def di génn mu jàpp ko hmm. daan ko. c'est-à-dire des fois. loolu mën nga daan ci voilà technique des fois mën nga. merci des fois technique. mën nga gën voilà noonu maa ngi daanee baaboy. merci gis nga vitesse des fois mën na la fu muy baaxee mooy première approche bi du ngay soog a ñëw mais boo leen jàppante euh, mbëri bu amee technique lu bëri mën na la ko si daanee même sa vitesse. kon Tapha Tine cuunewul. xam nga man combat bi li ma ci mën a wax rek mooy. su fekkee Tapha dafa ñëw di attaqué ah loolu loolu moom Boy Niang moom moom combat bi mais su fekkee Tapha Tine dafa taxaw combat bu soofa nar a am foofu bu soofa soof kontaan naa ci yow euh, technique kaddu. di leen Ba looy tàggatoo. waaw man dama doon euh, juste ci analyse Deep Hulk bi c'était une analyse très pertinente en fait dama bëggoon juste dire mbër yi ni leen di gisee ni ñu bëree ils s'entraînent très mal dañ leen di mm. gis nii si salle yi et tout leen di filmer xamal mais ils s'entraînent très mal c'est-à-dire que yenn méthodes yi ñuy utiliser elles sont erronées pour avoir le maximum de résultats possibles en fait loolu rek laay wax et fi may jeexele mooy mbër yi ñu bëri dañu naan way mën nga jéem a ëpp doole sa adversaire loolu moo koy daan c'est pas vrai parce que làmb l'objectif ce n'est pas nga ëpp doole sa adversaire nga daan ko soo jëlee exemple Baboy contre Bombardier Baboy Bombardier bu bu Thiès bi 2006 bi ñu bëri dañ doon reetaan en fait il se disait mais Baboy il n'a aucune chance far mm-hmm. nag question tactique la ak mental bi ngi indi Bombardier excès de confiance la demee donc tout ça pour dire que booy Niang de toute façon il sera prêt physiquement il est toujours prêt mm-hmm. je pense pas que lamb ji si niveau doole lay lay mm-hmm. euh, lay terminé wu mais niveau stratégie ak mental Tapha Tine su andiwee mental bu baax mën na am dara si combat bi mais c'est très très très bon. kontaan ci Ba. naa gën kontaan grand plus mon ami. mais mais grand Mercedes. ñu ngi koy ziar di ko béggee comme d'habitude c'est un plaisir. grand bi dégg nga analyse u Jib Hulk. apparemment Jib Hulk man personnellement bi ma combat bi taxawee dama ne woon tafaatin Tine forme bu mu bëri Yékini Junior baaxul ci diggante mu booy Niang mais dama leen Tapha Tine dafa dégg loolu entraîné entraîné entraîné ba tey séché. yor mhm. poids mun na ne moo ko moom. Mhm. mais Jib léegi-léegi lu mu wax léegi-léegi tiital na ñëpp ci cadre musculation non mais wax en tant que spécialiste Djibril lu mu wax dafa mel ni tafaatin dooleem bi fu ñu koy séntu àggu fa am na nag ay avantages yu tafaatin am ci cadre jàpp yu mel noonu mais jàpp na ni que tafaatin tey lu dooli góor dëgg muy ndigg des na ci tafaatin grand Mercedes lan ngay tontu Djibril ak ban analyse ngay def moom sama gaana maa ngi koy nuyu moom moom xamante ne <laughs> mais yow tamit naa ngi lay nuyu di la siyaar rek euh, keroog am na lu ma la doon wax naan la ma ngi lay envoyé message euh, Toumani leeral na ma ko quoi en fait. so Toumani na ma ko pour problème bi. Euh, jib Xalk li ngeen xamul si moom Jib Xalk baadu build la. baadu build mooy. Jib Xalk du gis graisse moom pour moom tànk daggu ba niin ba muscle <laughs> affaire yooyu noonu. mais jib dëgg jib déglul jib déglul. déglu naag rek jib xel ah, du sportif. Mm-hmm. du athlète baadi build la. Mm-hmm. jib xel du lekk suukar. jib xel du lekk graisse. jib xel secteur ci guddi lay tëdd. jib xel du lekk ceeb. jib xel ki du lekk lu weex. jib xel ki nen du lekk zone bi du lekk fat c'est que lu ngeen mënul comprendre jib xel ki baadi la. <laughs> so bodybuilding jotewul dara ak sportif. <laughs> est-ce que buzz yaa ngi comprendre li ma la bëgg a carrément. maa ngi dégg bu baax a baax. merci jéemal que tey jii boo ko invité woon sa kër sax. <laughs> buy lekk day compter ñaata tibb la war a lekk. bu bu paree ñaata la war a naan. sinon day yàq yaramam. mën nga dégg ay statut ok ok bokkul. jéemal que moom ni muy doxee mooy ay calories ay fat ay ay ay ay. ay poy moom waxee loolu moo tax man jëf xel ko mën a moom xamante nañ bu su fekkee question doole bi muy wax si tafaatin euh, loolu duma ci ànd ak moom mhm. tafaatin mënul am tay bi mu am ak poids bi mu am te du am doole par la force am na taay boo xam ne boo ko amee ak poids bi par la force da ngay am doole euh, deuxième chose bi mooy nan ngay exploiter sa doole lan nga koy utiliser ak kañ ko ak kañ ko mën a ak kañ nga koy utiliser Tapha Tine am na doole. Mm-hmm. parce que Tapha Tine am na doole mooy ku mën a jël Yékini Junior dóor ko boot boobu noonu boot rotation nga mën ko def Yékini Junior loolu doole la ku mën a buddi Yékini Junior ba ci kaw dóor ko ci suuf loolu doole la. ku mun a kor jos dóor ko mu def trois appuis nga juutal ko loolu doole la ku mun a téye bombardier dóor ko ay crossé yu mel noonu loolu doole la ku mën a tëye Elton dóor ko ku yi mel noonu loolu doole la il faut ñu bañ a confondre que mën a dóor ak am doole bon euh, mm-hmm. Tapha Tine dafa am doole. Mm-hmm. Mm-hmm. mais c'est pas go ahead ma ci. rapidement réplique. déjà mu décrire Dip moom xanaa Dip du wax ni yëpp de moom daf maa tiital sax gaan bari may lekk daw yee kaay ma la nag gis nga buñ doon bu ma doon bu ma doon teg même bu fekkee ne da nga naan damay compter li may lekk boo xoolee li may lekk si bës bu ma la ko tegaloon yow mii doo ko lekk doo lekk xaaj bi lekk rek léegi nag dafa am si biir lekk choix bu yooyu def si biir lekk léegi bul bul indi affaire bi dans une vue personnel si man ndaxte du man entrainement ax nu mu mënti demee entraînement kese la doole doole kii di bodybuilder doole kii di poids powerlifter doole kii ak doole doole kese la technique d'entraînement technique d'entraînement la danga koy adapté ci sport bi ngay def puis bro kaay ma xamal la balaa may def bodybuilding bi ngay wax dama football dama jouer rugby doole dëggantaan kese ngay ut si loolu mais comme je te le bul indi affaire bi sur le domaine euh, bu mbëri mënoon lekkee noonu chaque jour si ngay gis différence bu ngande pii pour man c'est pas question de gras ndaxte bu doon lool la rek kon damay kontaan si tafaatin nu mu mel ndaxte perte na gras mais du si affaire de graisse kese puis man gëm naa ne si processus boobu nu muy wàññeeku wee dindi graisse bi sax loolu tax na mu pertale doole tuuti ndaxte booy wàññi graisse bu bëri da ngay ñàkkaale tuuti doole est-ce que comprendre mm-hmm. donc c'est pas du du aspect wu jet nii nit ki war a lekkee dafa adapté ak ku nekk. mais attends man ni euh, may euh, lekkee euh, xaaral xaaral may ma yeggali rek. man ni may lekkee du ma ko conseiller nit du ma ko conseiller Yékini Tapha Tine mu lekkee ko noonu ndaxte suñuy physique bokkul suñuy objectif bokkul moom bu ma ko doon conseiller lu muy lekk day nekk benn plan boo xamante ne dafay adapté ak moom taayam poiwam ak fu mu bëgg a yóbbu poiwam puis dafa am lu ñu naan composition corporelle maanaam sa body fat sa masse musculaire man masse musculaire am moom ma gën a ñor si lépp boo mën nga wàññi graisse nu mu la neexee mais nga garder fa doole sa maanaam masse musculaire wala nga yokk ko loolu am importance avant ñuy ñëw ci mental bi bàyyil Mercedes mu mu daaneel Mercedes ñëwul tàggatool foofu Mercedes lan nga bëgg a expliquer Mercedes comme réplique. Sénégal li ma bëgg a expliquer mooy gis nga bi du combat mystique du combat doole du combat du combat supporter du combat du combat entraînement daanul combat bi ñoom ñaar seen combat daanu ko. ce qui fera la kon lan lay doon. décision. tafaatin li mu indi bu mu ko changé bu ñëwee ne nii lay bëri ak Boy ñaa li anglais tuddee waneen daan na ko def benn yoon li bon mooy nga ñëw di calculer ay su ma gos gauche Boy Niang day calculer du ma ko dóor crochet da nga gis sax crochet boo xam ne da ngay xam ne crochet bi baax na mun na ko dóor mais du ko dóor parce que day nekk combat de calcul bu yàggee day nekk day nekk combat bu soof day nekk combat match nul Boy Niang li mu indi si làmb mu nekk mental bu dëgër boo xam ne xol la décision bu ferme boo xam ne bu ñëwee moom lay def ni su ma ñëwee du ma génn si deux minutes yi dinaa ko dóor crosse gauche xeex ak moom mu bañ ma jël tànk bi wëq bi si suuf def rotation ànd ak moom mu mboot ma mbootu jolol ma daw làqatu ci ndigli il faut nga am benn décision booy def plan A ak plan B loolu mooy jaxal combat bi ki ki nga xam ne moo gën a am décision gën a gën a motivé ëpp xol kooku mooy daan combat mais bu fekkee da nga ñëw ne tey su ma daanoo yàqu Balla Gaye mi ngi may xaar su ma daanoo Balla Gaye du ko jël Ama Baldé daan daan tafaatin te man Pikine dëkk il faut que ma daan sama waa gaale situation bi ñii la demee kërëb-kërëb booy ñaa bu ñëwee suy xalaat loolu du bëri tafaatin bu ñëwee ne bawol yëpp ñu ngi sama ginnaaw gëj naa daan malgré sax si victoire la jóge Yékini junior Ama Baldé daan na ma du ma nangu nekk escalier booy Pikine damay def ndànk lu may def dama ci def attention kërëb kërëb bu ñëwee du du daan gis nga nit ki boo dul jël risque yaa ngi si risque. que le gañ muy tafaatin muy booy ñaa lépp décision buñ ciy jël am ci fulla boo si daan nga daan ci buñ si daan ñu daan la si mais nag calcul bi jëm fii ba 4 euh, avril combat bi day nul wala mu jeexee si blessure wala combat bi yàqu te lu bu boobaa kenn bëgg ko wasalaam. kontaan ci yow Mercedes. waaw mais sama waa ji. Eh, Cheikh Sylla su ma jumul mu ngi yëngal loxo. ah bon Cheikh ma ci lu Mercedes wax balaa may jox jib xel cadre mental bi. li Mercedes wax foofu lay ñëw. waaw. di ko wax ne combat bi du niil. du jeexee mhm. ardo du jeexee du jeexee avertissement. nu muy jexe li ñëpp li ñëpp di wax naan Tapha du ko def. naan waru koo def. waaw moom lay def avec la manière daan ci Boy Niang avec la manière manière dina fu Boy Niang taxaw dana ko fa fekk jëli li mu jëli mu jeex xam nga ñëpp dañ ne Tapha wërta attaqué Boy Niang waaw <laughs> waaye Tapha dina fekki Boy Niang à manière incha allah daan ko ci lu amul benn werante yow mi bëgg a seetaan komba Boy Niang numéro 2 ak Tapha xolool ñu wax la naka ngay def ba jënd ko mën ngeen ko jëndee par code comme mën ngeen ko jëndee ak seen carte bancaire da ubbi sa navigateur nga def www point seen affiche point comme après nga bës ci événement Boy Niang numéro 2 ak Tapha Tine di nga gis ñaari option option 2 bi mooy connexion par carte bancaire mooy 9,99 euros waaye nag bu fekkee ni nekkoo leen Afrique nekkoo leen Brésil nekkoo leen Argentine mën ngeen a utiliser seen carte bancaire ndax côté yeggul foofu. yow mi nga xamante ni nag nekkoo Afrique nekkoo Brésil nekkoo Argentine sa carte bancaire rek nga mën a fayee. da ngay dem ci seen affiche point com ngeen daal di dem ci événement Boy Niang numéro 2 ak Tapha ngeen daal di cliquer connexion par carte bancaire. ngeen daal di bës achat ou connexion daal di topp nag tegtal yi nga xamante ne ni moom lañ leen di wan. mbës ngaa ubbi compte ci seen affiche point com. dugalal sa mail ak sa mot de passe sinon cliquer ci bouton inscription nga dugal sa email confirmer waat sa email daal di nag bind sa tour ak sa sant ci noonu nga daal di créer sa mot passe daal di confirmer waat mot de passe bi léegi nag da ngay cliquer ci kaasu j'accepte les conditions doog a nag bés ci bouton s'inscrire mën nga itamit fay ak sa carte crédit wala ak sa PayPal dugalal sa tur ak sa sant bi nekk ci carte bi daal di dugal numéro carte bi nga daal di dugal mois ak année d'expiration bi nekk ci carte bi ak CVC bi nga xamante ne ni moom mooy ñetti chiffres yi nekk ci ginnaaw carte bi. bësal bouton payer di nga jot benn mail buy confirmer sa paiement saa yoo ñëwatee ci seen affiche point com sa mail ak sa mot de rek ngay dugal soxlawuloo benn yoon code.